na ci lu jëm ci wàllum kaaraange. waaw te ci lañ bëgg a taxaw ci ci ci ci diwaan boobu muy muy Ngor est-ce que loolu aussi mënuñu leen ko nangul. il faut muy Ngor muy Thiès. muy mm-hmm. Mbour muy fu mën a doon euh, c'est l'État qui est garant de la sécurité des populations. État du Sénégal. Mm-hmm. du question régime bi wala beneen régime. Mm-hmm. État du Sénégal mooy xool na euh, bërëb sàngam war naa fa teg police. wala gendarmerie. wala caserne sapeur-pompier dafa am sax ay normes lu ñu woowee norme ñu ne ci euh, dëkk bu am nangami habitants euh, je les plus les chiffres en tête war nañ fa am lu mu néew-néew poste police wala brigade gendarmerie am na fu ñuy toll ci wàllu dayoo ci dëkk bi nu mu toll hmm. ñu ne la war nañ fa teg euh, caserne sapeur pompier wala maanaam tous les services yi nga xamee ni ñoom ñoo aju ci wàllu sécurité kaaraange askan wi hmm. état moom moo yore rôle bi du question man maa moom sama dëkk euh, man maa fi juddoo sama maam ak a sañce euh, sama deret a fa ne que yow sa sécurité yaa koy garanti la su bopp ci lu jëm ci dëkk bi yëpp parce que dafa am ñoo xam ne dañ doon yore ay milice wala ay euh, ñu yore wàllu kaaraange ñoo xam ne bokkuñu lu état jël na ni ñii ñoo yore wàllu kaaraange tàggal leen ci wàllu boobu donc il est nécessaire que bu état gisee ni fii war naa fa def gendarmerie mu def fa gendarmerie regarde un peu da naan gor mais ci zone boobu noonu yëpp ba aéroport mais gisuma fa brigade gendarmerie boo ko dalee bu ko dalee euh, gannaaw peut-être wakaam mi nga xamee ni am na ay yenn service yu mel noonu mm-hmm. mais boo xësee ba génn daanaka ci zone almadi bi yëpp mm-hmm. doo fa gis gendarmerie wala police ci maanaam ñu am fa benn dalwaay benn post wala brigade wala lu mu mën a doon maintenant si l'état juge dans ce cercle ci pour kaaraange askan wi war naa fa teg nangam mais looy teg lu nekk day am ñooy waxtaanal ci wàll boobu l'état c'est qui c'est pas le président de la république forcément ou le ministre de l'intérieur ou le ministre des forces armées puisque par exemple mbirum gendarmerie mais démembrement état mooy mairie bi mairie bi mooy ne ni man ma am suuf suuf si ma am nangami hectare la wala nangami mètre carré la am na lu ma sañ lu ma yoon may ne ni am naa sañ-sañu jël suuf si ci kaw waxtaan ak conseil municipal préfet joxe lu euh, ñu koy woyati validé ak yooyu ne am naa sañ-sañu jël nangam ci suuf si jébbal ko pour utilité publique état am na sañ-sañu ne ni yéen a moom Ngor moom Wakaam moom parcelle moom feneen waaye man état suuf si domaine national maa ko moom maanaam ñun ñëpp ko bokk mais man man lañ ko dénk en tant que état ma war ko gérer am naa sañ-sañ pour euh, utilité publique mais ma faxati suufu Mansour Diop am naa sañ-sañam man état ne ni Mansour dëgg la yaa moom terrain bi yaa fa def say tool waaye utilité publique ak loo xam ne dañ koy def pour ñëpp bokk ko mm-hmm. am naa sañ-sañu jël sa suuf wala ma jël ci pàcc ci sa suuf pour def ci loo xam ne ñëpp a koy bokk mm-hmm. mais lépp comme on le disait c'est une discussion d'abord mm-hmm. c'est une discussion le maire ci le ma comprendre ba ba fii il n'était mhm. pas d'accord les jeunes ne sont pas d'accord les populations ne sont pas d'accord mais parade bi ñu trouvé wala en tout cas négociation yi ñu mujj am démb mhm. mooy ni dañu ko xaaj benn bi ñu jox ko lii benn bi ñu mhm. defee ko lële mais nañu continuer dans la discussion mais surtout qu'on appelle tous les jeunes surtout à se retrouver discuter avec l'autorité ou les autorités Euh, ñu leeral mbiri seen xel parce que yenn saay euh, ñàkk information moom mooy indi souvent mu am ay jafe-jafe am na lu bees muy wàllu li ñu euh, defee peut-être couper la poire deux ce que disait mm-hmm. tout à l'heure Mansour mm-hmm. ku ci nekk am nga ci sa gis di nga ci gis sa bopp mm-hmm. mais nañu véhiculer information bi et avec l'État le ministère des forces armées puisque moom moo yore gendarmerie nañ fexe qu'on qu'il soit moins visible parce que yenn saa yi mën na indi tension ñu ne ñii lañ doon xeexal démb am na kenn ku faatu si ñun. donte ñoom ministère de l' intérieur nee nañu ba ñu defee enquête ni nii xale bu jigéen bi fukki at ak juróom maa ngi wax sànq ci tubaab. ci communiqué bi ñu génne ci géej gi la génnee. maanaam daw na moom peut-être daw na ay lacrymogène ba dugg ci ndox mi mais moteuru gaal moom ci li ñu def ci seen wàllu enquête moom moo am lu mu laal ci bopp bi bu mu faatu. mais ñu ne ñu ngi continuer de toute façon ay ay ay enquête ci loolu mm-hmm. parce que jàpp ma ni ku am 15 ans di jigéen mm-hmm. bokk na ci ñuy dem di jàmmaarloo ak ak takk takk der mm-hmm. mais liñ naan nag day am ay dommages collatéraux mooy nit koo xamee ni yow peut-être da doon romb rek tombeek situation nit euh, suñ mbokk journaliste boobu nga xamee ni Yacine dafa demoon ci pour couverture manifestation mais sànni nañ lacrymogène muy daw pour reculer ba far oto ñëw mbëkk ko nekkul woon coobareem demul woon ci manifestation mais couverture la doon dem donc day am ay dommages collatéraux mais lii indi domage yooyu mooy situation de tension nañu dindi tension bi parce que ay la yowén je le disais tout à l'heure en français réew mi ñoo ko bokk gendarme bi jàkkaarloo naag peut-être sax que mu sànni lacrymogène mhm. wala que mu liife mhm. bu ñu xoolee ba ci biir mën na am mbokkam la sax nañu seet nu ñuy defaree ba mu rafet. d'accord Birame ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Thiala di nuyu mbokku téléspectateurs yi. di nuyu comme def